daa nañ ci ay jataay te nag maa ngi wax ci baatul lislaam nee na wal islaam israhan bil amal lislaam nag nee na boo ko bëgg leeral neena na moo di al amlu saalix looloy lislaam gannaaw ba nga xamee ni iman pas-pas la la muñ tudd ko fokk jëf ji nag moo koy leeral bil imtisaal li dalik imtisaal nii la waxe jëf ju yiw nga defe ko noone ndax mu yiw wal izaan al zahiri lahu nga wommatu wommatu bu feeñ ci lislaam boobu nee jëf ji yu jooju mooy leeral li nek sa xol ci la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wal izan adh الثالث والإذان الذاهب amal aw lam ya'mal wax nga non fi lan la seigne fekkee wax wommatu na ci baat bobu tudde liman wommatu ci zahir def lu baax neena loolu mooy lislaam tey nag mën na ñëw tudd baat boobu rek nangu ko jotagul def dara yàlla jël ko kooku muslim la kooku mooy muslim kon fa maana islam sharan al imtisaalu wal inqiyaadu lima jaa bi nabiyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lima jaa bi nabiyu muhammadun sallallahu alayhi wa sallam بما علم من الدين بالضرورة لي موي لولو تود الإسلام نينا وموتو ومتو تي لب لوخ نينت بي النبي صلى الله عليه وسلم تي ني كو تي بالضروره موي نغا خامني إيه، ديكو جانغي ييب ديكو خام مانا دو سخصون دا نيت كي رك خامني لي الاسلام اندي dañ ko misaal loolu nga wommatu ci nee na loolu lu ñu tuddee lislaam lépp nag yunt bi indi fi loolu moo tax mu ni eh, fa inna al iman wal islaam mutagayiraani neen lislaam bokkul ak liimaan وخناكو متغيرا مفهوما أي معنى كان معنى وطن وما صدقا لب لو خمني قول دقل نكو كوكم جدلو تي ليمان دنجة لي لمن فينال جدلو تي الإسلام وإن تلازم الشرعان نين دون تي والو شريعه ليمان اك الاسلام دنيو تيخاليكو ني انت باعتبار المحل بعد اتحاد الجهه المعتبره كي وخين اصولي لا بلاص نغم مودي خول واي سوكو لامين تودول ا <hesitation> دو سوتي تي ظاهر موتاخ الاسلام كين مونوكو ام تي ظاهر تي خول كسي تي لامي وي نيول lolu motax tax ni fa laa yajidu mumin laysa bi muslim wala muslim laysa bi mumin talazama mumin bo gis muslim la ndax tudd bi mu tudd iman bo soxla moko tax nek muslim muslim bo gis mumin la ndax iman bi ci xolam mo tañu ñu ko mumin kon ñom ñaar ñoo and lele nak mbir am motax muni wala yuraddu man sadaqa waxtaramatul maniyya masala ki dafa deugal ci xolam avant mu ñëw di tudd limu gëm yàlla dogal sama fatu fa inna inda allah mumin wa muslim mbir nga non yàlla jàppe nako muslim jàppe nako mumin julit la ci yàlla wa indana laysa bi muslim wala bi mumin gis nga sharia mbir la ndax fi suñu borom bala ñu xam muslim ba tama ko tuddee tey nag wommatu na ci xolam bëgg a tudd ngëm gi yàlla xam na ko yàlla dogal na faatu na te jotu ko tudd ci zahir yàlla jàppale ko jullit muslim mumin mais ñun nag ñi jullit na moom ci dégguñ ci moom loolu te xame woon ko baatu kéeféer ñu ko jàppe jullit loolu bëgg wax ci zahir sharia kon lislaam du ko julle ndax si zahir nekku ci membre du ko yóbbu ci bameel jullit ñi du ñu doonanteeg moom yu demee noonu xam lislaam laaj na ko ci moom ci gisu ko kon fa talaazum ba da tihaadil jiha mu'tabar ànd ak yi xam ni liimaan moom la ànd ak euh, lislaam du ko jàpp bu gëmee ci diggante mi yàlla d'accord waaye diggante mi nu jullit ñi fokk mu tudd baatu ngëm ñu xam ko كم كبي أمول لن كجاب جلي والكلام في الإيمان المنجي لن يغنق مو ينغم جين خندن موسل كيرغم جم أفعل لا والإسلام كذلك الإسلام بي موسل جلي سلن نكوح وإلا فلا تلازم بينهما سفكين وخوين فوفو الإيمان أك لول تود الإسلام كون ووتن نيو bal baynahuma al umum wal xusuus al wuji am na seen diggante matale foo xam ne boo waxee mu làmb lislaam làmba liman wal xusuus am na seen diggante itam jago wala jagleel boo waxee kese lay la muy liman kese wala boo waxee muy lislaam kese mu ngi noonu kon liimaan ak lis ak euh, loolu tudd lislaam buñ ko xoolee seen diggante lu ñu tuddee umum ak xusuusu wëje moo leen dox ci bu ñu waxul ci imaan boo xam mooy musale nit ki walla lislaam boo xam ni mooy dugal nit ki aljan lan lañu bokk ñoom ñaar ak lan lañu wute nee na yejtamiaani في من صدق بقلبه وانقاد بظاهره فهو الإيمان أجلس أك الإسلام دجنا تجدنا كتير ميم كان أبوك خلنا نعو كرو مسلم لا مؤمن ده لولو موي مسلم وينك فوق اللي جيف بي مهنيو وينفرد الإيمان في من صدق بقلبه فقط سفيك نك نيت كي خلام كسي مو وإن لم تلقكو كوكو مؤمن لا عند الله تعالى والإسلام نك مومتام دنا ويتو في من قاد في من انقاد في ظاهره فقط فكيني لمنيم نانغو تود بات بي سل بي mu koy def ci zahir xolam nangu ko kooku moo muslim waaye fasik lay doon ndax gëmul loolu mazhabu jumhur lol motax l'islam taqale fofu l'iman ak الاسلام waxna ci alquran قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم في وخين لا ني وخ سب نزول بلين كاو dañuy xeemee moon ci jël azaka bu ñëwee nag tudd baatu seede bi kon muslim lañu bépp ku tudda ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ci sa lamiñ muslim nga bu duggul sa xol nag doo nekk mumin loolu foofu nag suñu borom teqal na ko niki nii leen xaalat wax na al araabu lenn kaw kaw yi amana gëm nañ baatu amana luñu utiliser te ñi ngi soog a ñëw te yàlla xam na li nekk seen xol xul ne leen lam toominoo gëmu gëmu leen fii waxagul gëmugu leen gëmu leen walakin qulu aslamna légui man ngeen wax ni jébulu nañu jullit lañu ci zahir wala ma yadxil al imaanu fi qulubikum ngëm duggagul seen xol da ngeen ma nekk muumin kon fii lislaam teqale na imaan ak lislaam ñaar la bu tuddee baatu tawxiid ci lëmiñam muslim fi xolam gëmugu muslim rek la bu gëmee ci xolam te tuddugu ci lëmiñam mumin foofu la yam bu leen boolee ñoom ñaar ci lay soog nekk mumin muslim buy am fu la jëm jëm ci lisaan kon misaalu hada lu bëgg wax dafa ni woon lislaam nanga ko saraa ci ci jëf mu indi assala julli ndax gannaaw imaan buñ ko tuddee julli jëf la ponk la ci ponk lis wa siyaam koor jëf la ponk la si ponk lislaam zaka génn azaka jëf la ponk la si ponk lislaam wal xajji ak aj yépp ay jëf lañu yoo xam ne mooy saral lislaam fii dugg nga nag ba entré ñu ne jullit nga accu liggéey baa nga noonu ak yeneen jëf yoo xam ne lislaam sàkku na ko ci yow te danga koy def farata la loolu moo tax mu ne waalam anal madaar fil islaam al-izaan lil madkuura neen lislaam boo ko bëggee xam na nga ko firi jëf moo nga wommatu ci li ñu tuddé ponk l'islam ak yenen yonkand ponk l'islam ti yàlla faratal ko ci yow waxal zahir fi qayl nutq li la nag bokku bokktul ak tudd gi nga doon tuddé l'islam di ko feeñal kooku ma nga dellu ca liy wéral ngëm wala genn wàll ngëm comme nañ ko firee woon mais gannaaw yaa ngi commencé si julli di waar di génne azaka di aj di jokki bokk bu xeex lislaam waree nga xeex ila axi loolu mooy nañu firi lislaam ak jëf di yiw jëf di yiw wa ma nutq فلا بد من حصوله سمو يفيد إذان له ولغيره تدقيت الليمان كوكو قاعدة الليمان ولا شرط الليمان لا من الجفقة مودي ga moo di mottali limaan ma nga noonu kon lislaam ci gannaaw ba nit ki fase lima tudd ko womatu gi ma womatu ci ponk yooyu nga xam ne mooy ponk lislaam di ko def nañ ko sante li ñu ko tere mu bàyyi ko nañ ko ko teree yoolu moo di lislaam loolay womatu ci lépp loo xam ne salaa sallam andi na ko bil jumla kalimatu shahadatayni yakfa ani nafsiha baati seede yi boo leen tuddee sa xol tudde leen sa lëmiñ jeex na lislaam a nga noonu jullit nga dugg nga la la dese mooy nga jëfee moo tax seede yaa ngi noonu fii gan nga doo jullit juddowoo ci nanga woo ko tudd bi maanaam bokk goo te boo ko tuddee dañ ko appliqué si noonu laa ilaaha illallaah ba pare di jaamu keneen ku du yàlla yooyu du wax kon dafa wax ni bu xasee tudde baat boobu sell boobu ci lëmiñam jeex na noonu lëmiñ la noonu jàpp jullit ñi li ci xolam yàlla moo ko jàpp comme ne woon na dëggal na ko ba wax ko daf ne nag booy génne asaka ci ñeen fu nga jël benn ba ko sellal nga gàtt bi nga génne jox miskin yi sellal nga fanweeri gàtt yi la des ak juróom-ñeent noonu la tudd baatu seede bi am njëriñ amal na njëriñ ci liimaan fi nafsil waxtu am na njëriñ ci ci lislaam moom noonu lu am solo la ci nit ki xàmme kon bu ñu wax lislaam nga saraa ko ci liggéey ñu ni liggéey boobu tudd julli Asalat nani julli ci luxa moo nuy firi du'a mutlaqan ñaan ñaan lay firi ñaan gi nag nee ñu mën na nekk ñaan lu baax mën na ñaan gu bon ci luxa ñeen bi du'a ci itam ñaan gu baax rek kon ñaan farat la waaye wa sharan buy nag lan mooy julli aqwaalun wa afaalun maxsuusa muftatiha bi takbir muxtatima bi taslim ni lañu firi julli ci sharia julli sharia moo ko jàngale waaw doonte limaan usul diin moo ko jàngale nee na julli ay wax la ak i jëf yuñ jagleel jagle mooy new loolu neex rek wax loolu neex rek def muftaxi yu tàmbalee bi takbir ci kabar kabar boobu ñu tuddee kabar armal ba muxtati mu jeexee bi taslim ci asalaamaaleykum loolu julli mu ànd ak sart yu ñu jagleel ni moom ngay def yi surutu sixa la yi surutu wujub loolu mooy julli liggéey bu ñu ëmbe imaan loolu moom rek am na yeneen liggéey وهي باتو السلع فن كجلي وهي إما مأخوذة من ال من الوصل وصل موي جوك لتجول نيكو وي وصل لأن وصلة بين الأب وربي نيكو دقلو باه جامبي بوني يالا كنلا مو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمان نيني جولي نك موي دوخ muy dëggal ni li nga wax dëgg la ci yow benn moo tax ñu ne mi ngi jóge ci wasl ñi ni mi ngi jóge ci min salaytu al uda binnaar salaytu al uda mooy eh, wàjje naa bant bi ci sawara boo gisee kaw kaw yi dañu ko def bant léeg-léeg bu xasee dëng ko dugal sawara di ko fudd bu mu jub neñ fofu la sala joge ba firi njar isa tahu biha bu du ak sawara nga ko dugal di fudde banta bobu du juk li anna tuqrimul abd ala ta julle nonu non non la jubante nit ki jubal ko saxal ko ci top yalla tabaraka taala ñu tudde ko nonu wa koy tere itam min khilafi fi ci mooy yàlla kon julli njëriñ nonu noonu la toll julli lu rëy la nekkul lu tuuti qaala allahu taala inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar fii waxtaan la ci faydatu fayda min fawaid salaa njëriñ julli waxoon na ci baat bi ci loxo day jokk diggante jaam bi ak boromam wax na ni ci luxa day firi ñaan jullee ngu noonu wax na ba tey ni julli googu mi ngi ko jóge ci wasala ba firi day jokk jaam ci boromam tey nag jokk googu mu ni nag julli yàlla ko wax ni day tere lu ñaaw ak lu bon kon ku nekk war na ci sawar ndax jullit bëggul lu ñaaw bëggul lu bon وقد روي أن فتى من الأنصار كان يصلي الصلوات الخمس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدعو شيئا من الفواحش إلا ارتكبه فوصف للرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن الصلاة تنهاو ستنهاو يوما ما صلى الله عليه وسلم maanaam benn xale ci لانصار lansaar mooy ñooñu teetu yonent صلى الله عليه وسلم تي Madina xale bu góor la nag neen da daan julli si gannaaw yonent bi salaa sallam mais nag terewu ko lu ko nees ñëw mu def ko ñu nettali ko nekk xale bi daal ngay julli jullikat la nag dañ ñëw si jàkk ji julli waaye ñëw bu nekk mi koy def lan la nabi wax salaa sallam julleem gii de dana ko tere ñaawteef bi yoman ma man ñaawteef ak julli mënta ànd bu bàyyiwul julli gi ñaari bi dana dañ neena yagul ya dara sax yalla ya sutural ko mu tuub rafetal tuuba ñu waxat ko sax mu ne waxon na leen ko neena lañ julli gi dana ko tel ñawte fi yoman ma loolu yunti mi ko jang ci alquran julli gu wir ak sartam nga tek ci yoon ñawteef day andu rek motax mo xnu man lam tanha salaatu an ilfahsha wal munkar fala salaatu lah wa sallam mag ñi duñu xam julli képp koo xam nee na ko julleem terewu ko ñaaw téef terewu ko munkar na xoolaat boppam yonent bi nee na amu julli ndax ñaari wax bu jëkk bi yàlla nee na julli dana tere ñaaw téef ak lu waaw kon ko yaa ngi julli ci def ñaaw téef lu bon xoolaatal julli ndax wax yàlla moom du dañ moo tax yonent bi firi ko noonu képp ku julleem terewul ñaaw téef ak lu bon julliwul amul julli bi maanaam julli ga charte fëq na ponk ya yàqu na xamul lu ñuy julli ne jéem jàngi waat julli ma ngi nett ñu benn bis ci daara benn sox soxna nit ku baax nit yàlla yàlla jox xam-xam mu jiite jàkk ji e, soxnaam génn benn bis benn waay gis ko e, nit ko daf ko xeme top ko rek soxna si nag comme que mi ngi jànge ci këru diine sëriñam la xam na valeur julli baka waji waa ji sonale dafa ni ko léegi dem bëgg nga sama bi nyen fuku fan si julli juróom si jàkk ji bo defee rek e mooy li nga may jox pour man jote ndax ndaw si xam na diine julli ni muy def nit surtout nga di def si jak ci gannaaw ilimaan waaye loolu nekk bëgg-bëggam mu daal di jàpp ba set di top sëñ boobu di ko top sëñ boobu waxtu armale mo armal waxtu Juli mu julli day yàlla dogal ñeen fuk fan mat yàlla raxas xolam ci bépp ñaawteef bu nekkoon ci moom eh, soxna si nag ndeysaan dogale ko benn bis ni ko diw la la waxoon la nga waxoon ak lama la waxoon pare nga mu ni ko man dootuma yooyu nit man léegi damay jaamu sam borom ndaw si ne xamoon naa loolu moo tax ñu bëggoon la defar mbedd mi di kar ay soxna jàmbur bien leen xeemeem fi jullit salte yu mel nii boo ko bëggee fomp nee na dangay seeti julli julle ngi noonu nee na lu am solo noonu nañ ci bàyyi xel bu baax baax moo yore suñu diine yi pas-pas bu wéer bi nga xam ne mi ngi si noonu nu di ko wax si nun jullee ko yor fekkee julli baax na pas-pas ba day gën di dëgër bu julli baaxul pas-pas boobu day dal ya njax mu noonu nee julli qaala baadul mufassirin assalaatu irsul muwahidin lenn si ñuy fiir alquran nee julli mooy ciyeetu ciyeetu ñu wéetal yàlla ciyeet nag ku ne xam na ko mooy bis boo xam ne bii nit ki day takk soxna façon ñoom yu nekk lu mën da ko indi teral ay mbokkam fa inna alwaanul ibada yaa ngi dégg nee na ciet googu lay niirale ak julli gi fa inna alwaanul ibada julli ay façon jaamu yàlla ngi ci kama anal irs yejtameu fii alwaanu taam waxin la céet boo ci ñëwee surtout borom céet gi yàlla jox ko poos bu xaw fees lu nekk la jënd lan la bëgg wax iza salla al abdu rakatayn yaqulu llahu taala abdi ma daafik atayta bi alwaani ibada hadiisul qudsi la jàngale nee na jaam bi bu julee ñaar rak sam borom ne ko ah sama jambi. andak ànd digi sa doyadi gi nga doyadi yëpp andi nga ay façon jaamu yàlla ya si julli gi te yaa man taxaw am na yoo malaaka yoo xam taxaw rek la def ñu am ñu rek am kese wa qiraa am nañuy jàng tahlil am ñuy zikar ak eh, tashahud ñu jàng seede yi wa tahmid am na ñu sant julle ngoom yi ci nekk wa takbir am nañuy kabar gis ngi façon yépp yàlla def ci julli yàlla ne ko wa ana ma jalalati wa azamati la yajmalu minni an am na ak janna fiiha alwaan naim waxin la yàlla ni ko nag comme que boole nga façon jaamu yàlla yu bëri yi ci benn ibada benn julli ñaar rakk ñaar rakk laa ko daj wala wittar benn rakk yépp ngi ci kàbbar bi bu ko ubbee yàlla kennal allahu akbar takbira ngoog jàng fatiha yaa ngi sant ruko sabba ci ruko sujud sabba ci sujud xiraa taxaw nga jàng alquran tahlil nga zikar zikar dafa jaatu de avant nga julli gi sax nga zikar nga tashahud ci nodd ga ci liqaam ga nga jàng alhamd boo boo sigiru ko sami alamni hamida rabbana lakal hamdu jul gi ngay ka booy kabar boy sigi kabar Anda kabar yi yeb nga boole ka ci façon jam yalla yi nga tok tay ya. selmal baatu yalla bu sel bobu nga tëje ko julli gi gannaaw bëkk ko kabar armal si baatu bu sel bobu neen yi yeb nga def ci façon jam yalla gi ma mag rafetul ci man itam ma xagn la aljana bo xani fiha alwan àjjana bu am ay façon xéwal duma la xañ kooku moo di suñu boroom kon nee na façon jaamu yàlla googu lañ ci julli neen dañ ko jox façon aljanna yi nekk xani façon xéwal yooyu nekk si àjjana waaw jabtu lakk aljanna waral naa ci aljanna bi naimi haa ci xéewalam ga nekk nga ma jaamoo ci façon jaamu yàlla yu bari ci bokul naa la teral ci nga gis ma ci aljana jooju nit nga ma xame ci sama wit ga di jamu ni tifun, nena may bur bo xani dama am ñewent dana nangu sa ngant lepp lo joom be def ko jéggalu ma baal wax la ngay def ci yiw nako nanggu nangu farata yi julli gi ak li ci aju ci gannaaw ngeum gogo dina ko nangu ci sama yermande ah fa inni naki man day ah ajidu man u'adhibuhu min al kuffar bin nar amna ñeneen ñe man duma ci sawara wen ya xani mom la taal wanta la tajid ilahan ghairi ti yow amu ben bur bu man da nga man sàkku si njégal kon jégal naa la ci barke li nga xam ni yaa ngi ko def si julli gi nga xam ni julli gu tedd la boole façon ibaada yu bare nga xam ni mi ngi ci kon ñu fonk julli ngi noonu pareguñ ci temps bi incha moo xaw e, yëngatu bu ko defee incha allah ñu yemane foofu yàlla defal na beneen jataay ñu àggale julli soog a ñëw ci beneen ponk lislaam xam ni mooy jëf ju ñu firee lislaam jëf ju mënta ñàkk na fii yaa ngi nekk jullit jëf ju mënta ñàkk la fii yaa ngi bëgg pas-pas bi ngeen di dëgg la ci yow wér foog nga julli ma nga noonu allah nu yemane foofu ba yàlla defal na beneen jotaay si jotaayu rahma asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.